بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا وعمل صالحا وقال إنني وقال إنني من المسلمين ولا تس تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم alhamdulilahi rabbil alamin bu ngeen déggee alquranu karim ju tedd jooju nga xamante ne nii moo fi jib léegi nga xam ne tabaarakallahu li ko waral du dara lu dul li ko daan waral rek moo ko waral mooy bésub alquranu karim bi nga xam ne sunu soppe sunu baay sunu nijaay sunu xarit sunu sunu lépp muy cheikh Mouhamadul Bachiru Kan alquran moom la daan organiser chaque année bés boobu nag moo dellu seeti tabaarakallahu ñu amal ko ñu koy amal le samedi 8 avril bii ñu jëm tabaarakallahu fii ci Kawsara Fall tabaarakallahu nga xamante ni nii bés la boo xamante ne ni Seydil Bachir yàgg na koo woote mën naa ne ren mooy 28e édition tabaarakallahu kon nag bés boobu moom lañ leen di fàttaliwaat rek muy ci weeru koor gi ñu jëm di ci woo képp koo xamante ne nii yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah boo déggee sunu kàddu gi rek nga xamante ni tabaarakallahu mooy sa woote bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu ñenn bàyyiwuñu fenn ndax bésub alquranu karim bésu lislaam la bésu alquranu karim mooy bésub yàlla ndax yàlla subhanahu wa taala amul lu dul alquran te mooy kàddoom kon buñ ko wootee wooteele bés te yàggu koo wooteel tabarakallahu ñu ngi ciy sàkku mboolem koo xamante ne nii yaa ngi nooyee ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bés ba nag tabarakallahu bu nu xëyee samedi le 8 incha allahu taala avril danoo xëy jàng ay kaamil alquran ci yu bëree bëree bëri bëri tabarakallahu bu ñu ba nga xamante ne nii tisbaar tàmbali naa dugg si jàngikati alquran yi danañ bàyyi ko fu nekk ci réew mi ak ci bitim réew ñu fas yéene assisté li nga xamante ne nii moo di alquranu karim ji fi war a jib si tabarakallahu kon nag ñu ngi woo ñëpp képp koo xamante ne dégg nga kàddu gi xamal ne mooy sa invitation tabarakallahu bés bi nag ah ñu ngi koy def nag ci ndigalu ki nga xamante ne nii mooy xalif général des mourides Serigne Cheikh Mouhamadunil ah, Mountakha Mbacké yal na ko yàlla dolli wér ak gudd fan ci ndigalam lañ koy defee tabarakallahu ak ci nga xamante ne mooy sëriñ Abo Mbacke de xalifa sëriñ Mouhamadou Nil Fadal Mbacke moom it bés bi bésam la tabarakallahu waaye nag sëñ Bachirou Kane alquran ku ko wax wax sëriñ Abdul Karim Mbacke borom makaarimu axlaaq nga xamante ne nii mooy xolam. mooy sëriñam mooy léppam tabarakallahu sëñ abdul karim mbàkke borom makaarimul axlaaq tabarakallahu di sëriñu seydil mouhamadun bachiru kan alquran ñu ngi leen di woo ci bés bi macha allahu tabarakallahu waaye nag bés bi nag sëñ bachiru kan alquran nag moom nag dafa nekk koo xamante ni dafa généraliser tabarakallahu bàyyiwul kenn nee na bés bi mi ngi ci woo baayam xaritam soppeem di lépp ci moom muy sëñ Mouhamadou Nil Muniru Njegéen nga xamante ne nii mooy xalifa Maulana Cheikh Alhaaji Ahmad Sakhir Njegéen tabarakallahu nen di ci woo nga xam ne mooy sëriñ Saaliwu Ture tabarakallahu toogal fii ci Thiès képp koo xamante ne nii njaboot sëñ Touba nga fii ci Thiès tabarakallahu mi ngi la ci woo sëriñ Moussa Fall nekk fii ci Kawsara tabarakallahu ak ki nga xam ne mooy sëñ Amdi Hamdi sëñ Amdi Fall tabarakallahu nekk fii ci Kawsara tabarakallahu nee na mi ngi ko ci woo den di ci woo ki nga xam ne mooy sëriñ Mbacke Fall Moustapha bu kër Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi ko ci woo tabarakallahu di ci woo sëriñ Xaadim Lo Gaydel borom ndaam ñu ngi ko ci woo baax a baax macha allah sëriñ Assane Kan Nasru ñu ngi ko ci woo waaye sëriñ ah, sëriñ Omar Njegen kalimatul haq nee na mi ngi ko ci woo di woo ki nga xam ne mooy sëriñ am bi Mouhamadul Moustapha kan di xalifa kaneen njax gàmmu nee na mi ngi ko ci woo tabarakallahu di ci woo it xaritam soppem sëriñam di magam di xalifaam mu sëriñ Ahmad Binta Kane ñu ngi ko ci woo tabarakallahu ñi mu jagleel bés bi nag ren ji tabarakallahu ki ku mel ni ki Ceerno Ahmada Tijaani Ba di xalif bu Bambilor nee na mi ngi ko ci woo bu baax a baax a baax ak El Hadji Abdoulaye Diop ancien ministre El Hadji Idrissa Gueye ñu ngi la ci woo bu baax a baax a baax moom mi nga xamante ni nii moom moo jiite res moom moo jiite de daayira ashaabul këf ci dëkk bi yëpp nee na mi ngi ko ci woo El Hadji Ahmed Saloum Dieng Nasruddin ñu ngi ko ñu ngi ko ci woo El Hadj Mor Gueye soppe na bi ñu ngi ko ci woo baax a baax a baax El Hadj Mouhamed Aydara Octa Dakar ñu ngi ko ci woo baax a baax a baax sëriñ Xaadim Samb jaalibatul maraaxib ñu ngi ko ci woo baax a baax a baax a baax maam Cheikh fay Ngourane ñu ngi ko ci woo baax a baax a baax monsieur As Biram Faye bu Thiès ñu ngi ko ci woo baax a baax a baax di woo ki nga xam ne mooy monsieur Mouhamed Nadir Samb di Afrique nekk fële ci Africa bolom ñu ngi ko ci woo baax a baax a baax ko ci woo a baax a baax Serigne Gagne Guèye nekk fële ca Dakar di entrepreneur bu mag ñu ngi ko ci woo baax a baax Serigne Touba seen di guide religieux fële ca Ndakaaru ñu ngi ko ci woo baax a baax a baax monsieur Pape Momar Ngom ñu ngi ko ci woo di kenn ci Serigne Abdou Karim Mbacké borom makarim akhlaq waaw di ci woo ki nga xam ne monsieur Pape Mouhamadou Seck mi nga xam ne moom moo jiite fédération des daayira makarimul akhlaq ñu ngi ko ci woo baax a baax a baax a baax nga xam ne mooy monsieur Babacar Diop di maire ville de Thiès ñu ngi ko ci woo baax a baax monsieur Birame Souley Diop nga xamante ne mooy maire Thiès Nord ñu ngi ko ci woo baax a baax a baax maam Cheikh kan commerçant ca Dakar ñu ngi ko ci woo baax a baax Serigne Dame Ndaw commerçant ca Dakar ñu ngi ko ci woo Serigne Djili Ndongo CSB ñu ngi ko ci woo baax a baax a baax monsieur Mamour Fall opérateur économique nekk fii ci Thiès ñu ngi ko ci woo baax a baax a baax di ci woo ki nga xam ne mooy monsieur Abdoulahi Baylaay nga xam ne moom moo jiite ETT ñu ngi ko ci woo baax a baax marraines yi nga xam ne it ah kenn mën mën mënta tudd góor ñi te tuddoo leen tabaarakallahu ñu fas yéeneen na wax ñoom mi seen i tur ku ci mel ni que soxna Fat Balkan ñu ngi ko ci woo soxna Khadijatu Siibi ñu ngi ko ci woo baax a baax soxna Aram Diop ñu ngi ko ci woo soxna Daba Ndiaye ñu ngi ko ci woo tabaarakallahu di ci woo ki nga xam ne it mooy ah, monsieur Mamadou Anne di fonctionnaire d'état nekk fii ci Thiès ñu ngi ko ci wo baax a baax a baax tabaarakallahu sëñ Bachirou Kane nag. alquran nee na bés bi da am ñoo xam ne tabaarakallaahu dañ ko ci daan wéttali daan bokk ak moom bés bi mu ñu wàcc nag liggéey tabaarakallaahu leen ji bu fas yéene leen cee boole nag rendre leen hommage tabaarakallaahu aoudu billahi min alsheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xadimihi mbokk yi gannaaw ban sant yàlla subhaanahu wa taala julli si xayru xalqi muhammad ibnu abdullah ñoo ngi leen di nuyu nuyób julit ak mbokkum julitam muy nuyób taalibe di nuyób sell di nuyób lislaam di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu boo leen déggee kàddu gi nag ñu xam ni bis bu rëy moo xew muy bis boo xam ni sunu wajur di sunu lépp muy cheikh Mouhamadul Bachir kan moo koy def chaque année tey nag mu tombeek samedi euh, le 8 avril ñoo ngi ci woon ak mbooleem sëriñ daara boo xam ne yaa ngi nekk Thiès bàyyiwun kenn bàyyiwun ñenn waaye di si jiital mbooleem ñi nga xamante ni ñoo àndandoo nekk benn jël seen bopp tuddee ko ahlul quran si njiital imam Adama Sogg ñoo ngi leen di woo ñoo ngi woo ñëpp bis bi nag bëgg nañ ci ay kaamil yu bari mbooleem ku ci mën a jàng kaamil it soxla nan ko nga defal ñu ko addiya Euh, jagleel ko bis bi euh, ñoo ngi bëgg a tàmbale kaamil gi nag xam naa incha allah 9h euh, jàpp yi dem leen bëgg a tàmbale kaamil bi bis bi daal ñoo ngi ciy woo mboolem sëriñ daara yëpp bàyyiwun kenn kon su ko defee dañuy delloo kàddu gi suñ basiru kan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon fa tabarakallahu bu ngeen déggee kàddu yu seetlu yooyu nga xamante ne nii moom la xaaji maxtaar ñi ngi mu jëm ci turu sëriñu daar yëpp macha allah ñu ngi koy rafetlu di kontaan ci kaddu yi rafet na yal yàlla barkeel mu mel ni que nag ki ñuy delloo kaddu gi muy sëriñ Mara Seck tabaarakallahu di muqaddam waaye di imam di kilifa diine tabaarakallahu fii ci fayu tabaarakallahu di muqaddamu imam asbaru njëgeen moom lañ fas yéene jébbal kaddu gi tabaarakallahu mboo am di jàmm yeeg soppey ak mboolem imam koo xam ne ta tabaarakallaahu alxuraan ñor na la bés bi ñor na la rek ñu jébbal la kàddu gi sëñ Mara bismillah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la qawla quwata illa billahi al aliyul ñu ngi leen di wax asalaamualeykum wa gisee jataay bi ma ñëw tey ci jataay bi ànd ak Amadou Mbaye ñu koy wax taaliba Cheikh ca Mbour 3 ndax olof dañu lu yàgg dëgg la te Mouhamad Bachir mi di sëñ Bachiru kan alquran la daloon subhaanahu wa ci sunu maam Ibrahima moo ko dal ndax subhaanahu wa taala moo waxoon sunu maam Ibrahima ne ko Ibrahima xalilulaa yu yaay sama xarit Bachir nag am nay mbokki deret am ay dëkkandoo waaye am nay xarit ñun nag ñooy ay xaritam àndoon ko di taxawu bis bii ba muy vingt-huitième année ci ren ren la am vingt-huit ans ñu àndoon ko ba dara nekkul dara kon book ñu ngi doolee sant yàlla di woo ñëpp ndax Bachir kat bu amee xarit mu ne ci dara da bëgg mu réussir incha allah taala Kan Tukulóor yow loo dugg dina réussir ndax baa nga am nga yërmande am nga islam am nga diine am nga iman te samp nga daara comme doomi soxna yëpp ni ngi def sa bis bi daal ñun daal ñun ci turu xarit yëpp. ñu ngi woote fayu ndax waa fayu bu ñëwee dañ laa delloo njukkal organisé nañu conférence boo xam ne ba kenn ñëwul yaa ñëw jàng fa alxuraan kon boog waa fayu bu la delloo njukkal doo ñu ngi woo ñëpp ci sunu bis bi asalaamaaleykum wa rahmatullah fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin jërëjëf sëriñ Mara Seck di muqaddam tabarakallahu ci kàddu yu rafet yooyu nga xamante ne nii moom nga yëkkati jagleel ko bés bi tabaarakallaahu di bésu alquraanu karim yal na la yàlla bindal yiw bu bëri ci barke yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu mel ni que nag dañuy fas yéene jël kàddu gi rek jébbal ko ki nga xamante ne nii mooy soxna jëmb caam tabaarakallaahu nga xamante ne nii kenn la ci sëriñ Abdou Karim Mbàkke fii ci Thiès bokk ci ay soldaaram bokk ci ay jàmbaaram yi nga xamante ne nii moom moom lañ moom rek la ñuy liggéeyal di ko bégg saa su ne tabaarakallahu kon soxna jëmb ñu fas yéene laa jëmbal kàddu gi rek nga wax ci tabaarakallahu li nga ci war a wax ñëpp a ngi lay déglu bismillahi rahmaani rahim. waaw asalaamaaleykum mbokku taalibe yi maa ngi nuyu ñëpp nag di ziar ñëpp di jox ñëpp nag seen wàccuwaay di jiital ci nuyoo bi nag sunu sunu yaakaar sunu bunt ci sëñ Fallou sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarima Akhlaq di nuyu sëñ Baskan bi nga xam ne moo waral jotaay bi macha allah di ko ñaanal ci bisam bi yàlla ci am ndam waaw dama ñëw na di waxal waa soppey Baye Karim Mbacke bu cees te Adja Penda Ndiaye jiite ko di sunu jëwriñ moo ko Adja Binta man ma nekk seen coordonnatrice ci biir groupe bi macha ci xew rek maa koy yëgle ñu ñëwoon tey euh, macha allah di nit ñi ci bisub sëñ Baskan bi le 8 avril incha allah rabi fii ci Madina Fall ñu ci ci kaw Kawsara macha allah di ci woo ñëpp nag bëgg ñëpp teewe bis bi. di ci woowaa waa soppe Baye Karim di ci woo waa kër Mor Gueye sopp na bi ndax toogee naa fi ñoom tamit parce que ñoom seen groupe ci laa bokk ñu ngi woo alaaji Mor Gueye moom it mu ñëw jàpp ci macha allah ak euh, ñëpp rek macha allah di ñaanal bu baax sëñ Baskan ndax moom macha allah taalibe sëñ Abdou Karim bu baax la bu yaatu lu ñu am ci kër ga mën nañu moom jëm moom ci la bokk yaatal nañu fa tax nañu xam ñu bari ndax ay gone rek lañ waaye moom moo tax ñu xam nit ñu baax ñi ndax suñu daraja tollu woon foofu waaye ginnaaw yàlla yonente bi sëñ Touba moom jëm moom ci la bokk kon ñu koy ñaanal di ñaanal ñëpp rek di wootewaat ñëpp di woowaat ñëpp ci bis bi ñu ñëw jàpp ci macha allah teewe yëf mu taw féexe maa ngi kontaan ci ñëpp di ñaanalaat bu baax ñëpp doole Cheikh Abdou Karim Mbacké. salaamaaleykum yéen mbokki waa sara mbokki taalibe yi maa ngi nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant di nuyu kilifa yi toog ñi di suñuy nijaay ñii di suñuy mag ñi di suñuy rakk maa ngi nuyu ñëpp ak samay jabar ak samay goro ñëpp ñoo fi toog maa ngi nuyu ñëpp. di ñaan yàlla bis bii ñuy séentu yàlla nañ ci dugg bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbi alamin bis bi bis bu mu doon woote yàlla na dàq bis bi ñu jublu yàlla na ko yàlla na dàq ci bis yëpp ñu jàll ci barke Seydina Muhammad yàlla na ci ñëpp am tawféex yàlla na ñëpp am xéewal li ma ko daan ñaana rek ndax bis bi sax man dama cee dama cee am tawféex fi mu ne nii ci dara ñëwagul barke sëñ fàll ndax euh, sëtub sëñ Modou Moustapha Fall dafa toog sëtub sëñ Modou Moustapha ngi sëñ Modou Moustapha sama nijaay di sëñ Modou Moustapha ñu tuddee ko sëñ Modou Moustapha sama papa di sëñ Modou Moustapha ñu tuddee ko sëñ Modou Moustapha ñaari sëti sëñ Modou Moustapha Fall toog sama maam Cheikh Ibra jox ko Kawsara jox ko Kër Cheikh jox ko Madina Fall kon bis bi ñun am nañ ci lu kawe suñu njortu lu bari kon nag dama li ma la ñaanaloon rek ni la bis bii bis boo mës a tëgg yàlla na ko bis bii dàq sagam ñun ñoo bokk ndey ak baay nga topp si man bis bi yàlla na dàq ci bis yoo mës a tëgg bis bi yàlla na yàlla def taw féex ci lépp képp ku fi andi feebar yàlla na ko yàlla faj ku fi andi ñàkk yàlla na nga am lépp lu fi waaye do dogu yàlla na nga ko am li ma wax nag génn leen waa famille bi famille Kernel ñëpp nañu génn ñoo ngi leen di woo fii ba njaagu gàmm tund xaali Amar Fall ñun ñëpp ñoo ngi leen di woo seen doom moo woote arxuraan te loolu moom def naa ne arxuraan mooy li jëkk mooy li mujj ndax arxuraan moom la ñëpp kenn ku ci nekk bëgg mu fees sa dënn kon ku ko woote rek wooteel na la loo xam ne tey fajuk aajo la biti kon nag na ñëpp génn lu ci waay saafara mu saafara lu ci waay faju mu faju yàlla na ci yàlla jàppale taxawu la ci ba fépp foo ci bëgg a àgg yàlla na nga ko ci àgg waa le huit la incha allahu ci koor gi fukki fan ak juróom ci koor gi yàlla nañ ci yàlla eggaleeg jàmm maa ngi woo ñëpp nag xarit yeeg doomu ndey yeeg mbokk yeeg ñëpp daal bàyyiwuma kenn ne ñëpp génn ci dugal si seen loxo ci xam ne arxuraan la arxuraan nag mooy lépp macha allah. jërëjëf euh, soxna Ndeye Maguette kan ci kàddu yu rafet yooyu nga xamante ne nii yëkkati nga ko jagleel ko tabaarakallaahu mbooleem jigéen bu nekk kaneen sa kaddu rafet na yal yàlla dooli la wér ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam am nañ mbégte bu baax a a baax boo ko defee rek ñu jël kàddu gi rek ko ki nga xamante ni macha allah mooy soxna Jaxu Gay nekk fii ci diwaanu Kawsara Fall tabarakallahu mooy mu fas yéene woote mbooleem jigéen ñu nekk Kawsara wala nga nekk ci daayira maam Jaaratullaay Buso yi soxna Jaxu bismillah wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi sant sëñ Baskan bu baax di gërëm wax dëgg yàlla ba mu ñëw kasaraak léegi dafa ñëw rek jël ak njabootam boole ko njaboot yëpp lépp di benn mu lépp maa ngi woo daayira waa maam jaara soxna jaara bu so maa ngi leen di woo na ñëpp ñëw ci bis bi bu nu xëyee nag ñëpp ñëw jàpp ci liggéey bi ñu bokk ba mu jeex ndax sëñ Bas boole na lépp boole na lépp mi benn bis bii nag yàlla na ko yàgg def yàlla na ko def ba ay di ko def kontaan nañ lool ci moom wax dëgg yàlla moom fi ñëw tey alxuraan lañ ko xam leel ak lu baax kontaan nañ lool ci moom yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko mboolem jullit waa daayira maam jaara bi na ñëpp dikk woo naa ñëpp na ñëpp dikk ci sama kàddu waaw onze billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim comme ni ñëpp wax ñoo ngi jëm bis boo xamante ne bii vingt-huitième édition du journée alxuraan bu Serigne Bassirou Kane su sëñ mu sëñ Abdou Karim Mbàkke borom Makarimal Axlaa ñoo ngi dënmal bis boobu ñuy ñaan yàlla ñun yal nañ ko weesu ci jàmm ak salaam dugg ceeg bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabil alamin am nañ ci yaakaar nag ndax sëñ baskan mii dafa dëkk ak ñun waaye loom social la muy dimbali góor di dimbali jigéen di dimbali ñëpp jaboot yoo xëy rek fekk nga ko ci makkaanam mi ne ko nangam ak nangam laa bëgg te kenn nag du ko xam muy nit ku baax nit ku bëgg bokkam bëgg ay mbokkam ndax bëgg sa bopp mooy bëgg sa mbokk te moom loolu la def ñuy ñaan yàlla bis bii ñu dënmal di ko def yàlla am ko yàlla may di ko def ay bis yu bare yu bare bare bare bare lii bu mu doon yàlla bu mu doon tàmbaleem bu mu doon tàmbaleem te bu mu doon mujj mujj bisam ndax mu ngi ci kaw Kawsara nag di fi def lu baax di nit koo nga xamante ni bii ba mun a dalee teral du tey mu dimbali waa Kawsara nag ba mu fi duggee ba léegi am nuñ ci leen nuñ ciy rëccu ñuy ñaan yàlla Kawsara gépp nañ génn maa ngi wax ci turu Kawsara nag kaw sara faal ci laa koy waxee ma bëgg waa kaw sara gépp génn muy mbuubeen kër jiili njaay di kër kaw sara faal gépp daal laa wax ku lim juum di kër maam jibikan gi nga xamante ne bii nag mooy waajuram di maamam yàlla na ko barke maamam dal ci barke Serigne Touba Cheikh Ibrahima ak Serigne Fallou Mbacke ak Serigne Abdou Karim Mbacke bara makkali wax laa jërëjëf fa tabarakallahu ahsanu xaaliqin jërëjëf soxna Awa Dieng ci kàddu yu am solo yooyu nga xamante ne nii moom nga yëkkati léegi jagleel ko jigéen ñi nga xamante ni tabaarakallaahu say soppe lañ say am di jàmm rawatina ñi nga xam ne ñoo dëkk fii ci gox bi yëpp tabaarakallaahu yal na yàlla bindal la yiw ci barka yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo ko defee rek dañuy jël kàddu gi nag jébbal ko ki nga xam ne mooy sëriñ Mouhamadunil Fadilu Fall di kenn ci sëriñ sëriñ maam Cheikh Ibrahima Fall baabil muridiina wal muridaati teewal fi képp koo xamante ne tey jii tabaarakallaahu yaa sant Fall te bokk ci gan maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Fadilu ñu fa yéene laa jox kaddu gi rek nga yëkkati yow say kaddu ci bésu alquran bi nga xamante ne nii weeru koor gi lay xew te ko ne alquran. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakatuh ñoo ngi nuyu mbokki jullit yi fi nag yëpp mbokki taalibe yi di sant bu baax a baax nag suñu boroom di ko sant Cheikh Sëriñ Touba sant Cheikh Ibrahima Fall. ñu ngi sant bu baax a baax ndax sëriñ Basiiru Kan euh, jërëjëf ndax li nga def nii euh, mel na ni am bi nga ko tàmbalee def ak léegi am na ay at ndax sa kër seex nga ko tàmbalee woon ba tey yaa ngi ko indi fii Kawsara yàlla na suñu borom bi yàggal loolu bu baax a baax a baax a baax gën la ko amal taxawaay gën a taxaw jël gën a gën laa amal taxawaay bu baax a baax si bis bi ngay def nii muy bisu alxuraan bisu alxuraan moom euh, kenn ku ne xam na ni. alxuraan ak weeru koor ñoom ñoo ànd kon loolu boo ba nga ko taxawalee léegi ndax ni ko soxna Ndeye Kane may waxee léegi fa nga ko taxawalee fa nga ko taxawalee ma ngi sa kër maam Jibril Kane la woon ndax kër Seex googu kër maam Jibril la fa ko fa taxawalee ba fi mu ne te kon loolu bu doxee ba yegg si kër si kër Kawsara gi benn ëtt bi la rek benn ëtt bi la rek ndax soxna Ndeye wax na ko léegi foofu day ëttub Seex Ibrahima Fall. di ëttub sëñ moo Moustapha Fall ndax maam Jibril ku ko xam xam kook Cheikh Ibra Fall xam kook sëñ Modou Moustapha Fall kon euh, Basirou Kane bu ñëwaatee woote bis si diggante kër seex ak kër Kawsara kon loolu moom war na ko lu ko lu lu ko war la te lu mu sañ laatim ndax euh, fi mu ko sañee mooy ci maam Jibril ni mu demee si kër Cheikh Ibra Fall demee ko si diggante Kawsara kër seex Midina Fall loolu dañuy wax ne maam Jiirul moo boole woon quartier yooyu yëpp yor may dégg sëñ Mbàkke Fall di ko wax ni moom moo boole woon ñetti quartier yooyu yëpp yor ko kon tey Basiiru kon doxaatee ba tàmbale ko kër Seex ba indiwal ko fi benn ëtt bi rek la kon ñi ngi sant yàlla bu baax ndax Basiiru day mbokk ñaari yoon dañoo bokk moom maam Jibril mu wëlbati ko bokkaat ñun suñu bokk si biir muy yàlla dimbali ko <coughs> mu muy denc suñu mag soxna maam Sey Fall mu koy denc si suñu biir doon suñu xarit doon suñu lépp nag kon nag si Basiiru soppeb mbooleem Baay Faal yi la ndax xam naa si dara ndax moom ñëpp ay soppeem lañ kon képp koy sëtub Seex Ibra Faal rawatina ngay sëtub sëñ Moodu Mustafaa Faal soo yàlla dimbalee nga mën teew si Basiiru si bésu Basiiru kan boobu ñun nga ñu teew ñun nga fi jàppale ñun nga si teewal ndax ñun Basiiru ñoo ko war a wooteel bisam ñoo ko a defal léppam kon képp ku fi si képp ku yàlla dimbali nga man see teew si rek nga teew si si li ko tàmbalee Medina Fall maanaam bu ñu Medina Fall am na fa ay kër yoo xam ni ñoom ñoom Basiiru ba tey muy benn suñu kër di kër sëñ Cheikhouna Fall sëñ Cheikh di nekk sa bopp ba euh, sëñ maam Cheikham sëñ Modou Ablaye mi ngi fa sëñ waa kër sëñ Siidi sëñ Modou sëñ Siidi nga fa euh, waa kër sëñ Cheikh Ngunda sëñ maam Saliwum ñun sëñ Cheikh Ngunda mi ngi fi ñooñu ñëpp ñu ngi leen di woo si bisub Cheikh Basiiru Kan bii boo ñëwee si kër seex sëñ Assane Baye bu góor ma nga fa sëñ Jiili Sarr baj moom sëñ Basiiru Sarr mooy sëñ Basiiru Sarr di ak soxna jeefaal suñu bàjjan moom itam ma nga fa sëñ di xaritu basiiru di wëlalam du léppam ak sëñ Moussa ab sa mu sëñ safa bay góor ñëpp xaritu basiiru lan kon ñooñu bu ñu seppee ay nit ko si wax rek daa mënta ñàkk si loolu waaye basiiru moom waa kër Cheikh Ibra Fall yëpp ay ay ay ay ay ay lañ ay wëlalam ba Touba ba ñëpp bayiwul kenn kon kon kaw sara kër sëñ Moussa Fall sëñ Fallou Njaaña waa kër sëñ Amdi Xadi sëñ Asan sëñ Moussa ñoom ñëpp sëñ Mbàkke Fall ñoom ñëpp ñu ngi fi ñëpp ñu ngi leen woo si bisu Bassirou kan bi kon ñu ngi siyaare bu baax a baax mbooleem ñi fi teew di xam ne leen di leen xamal ne daal Bassirou daal ku baax la bisam daal moom ku ku ku yàlla dimbali nga si teew si di si yëg si loo xam ne nii ba nga fi ñëwagul mënoo ko yëg ndax moom li muy woote bisu alxuraan la li waxuma la dara sa waa li si gën a neex mooy mbokk gi fi dajee mbokk gi jëgg a gisee nga xam ne jamono toll na foo xam ni mbokk yi ni war a gisantee gisante woon ni ni ñu war a demlantee demlante woon ko basiiru fexe ba loolu lépp mbokk gi dafa dajee dafa yendandoo ba ngoon jot ba dogu def lépp te lu ne la siy daj leer na ma ne wilaal xasim li mu si daj du ko si li ko li muy daj si bis bi ëpp na sax mëneesu koo sax wax waaye nag suñu borom mi ngi koy defal ak sëriñ bi mu koy defal moom xam na ak alxuraan mi ngi koy defal dana ko fay dana ko feral dana ko teral ñoo ngi sant bu baax nag suñu maam jee sëñ Moussa Kane mi nga xamante ni moom la maam Jibril dëppee sëñ Moussa Fall muy xalifa waa keneen yëpp ñu ngi lay siyaar bu baax di leen jéggalu kon nag kàddu yaa noonu mbooleem koo xam ne daal nekk nga diggante Madina Fall kër Cheikh Kawsara Basiiru kon bàyyiwu si benn côté mi ngi lay woo di la séentu si bis bi di la ñaan di sàkku seen i ñaan si bis bi di ñaan rek suñu borom dimbali ko ba lépp loo xam ni bëgguna ko si ak ak ak ñaan na ko si yàlla na ko suñu borom defal lu kawe suñu njort defal ñu si lu kawe suñu jot si barkeb ay si barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall ak sëriñ Abdou Karim Mbacke wasilaam wa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ak bés bi daf ci ñoo xamante ni ni dañ daan ànd ak sëñ Bachirou Kane ca ci bés bi yàlla dogal ñu jiitu ji tabaarakallahu mu fas yéene leen rendre hommage ren ji tabaarakallahu ci bés bi ñooy ay xaritam ay kilifaam ay soppeem yu baax a baax a baax tabaarakallahu te ma xam ci lu bëree bëri bëri bëri ndax moom fu ne nañ fa ku ne boole na ma ak moom tabaarakallahu nee na bés ba nag mu ngi ciy jiital ci ñi omage rendre ku mel ni ki sëriñ Maam Moor Mbàkke ibnu sëriñ Fadilu Mbàkke radiyallahu anhu nekkoon ku baax jëmm ju tedd jëmm joo xamante ni nii da daan tuur xéewalam tabaarakalaaw ci sëñ Bachiru Kan mi ba xam ci lu bëree bëri bëri ma fekke ci lu bëri kon sëñ Mamoor mbakke yàlla ko yàlla dolli tawféex ci barke yonent bi nee na mi ngi ciy rendre hommage ki nga xam ne mooy sëriñ Mouhamadul Moustapha Absa Mbàkke nekkoon fële tabaarakalaaw ca Daarul Muxti nee na mi ngi ciy rendre hommage ki nga xam ne mooy sëriñ Abdourahman Mbàkke Abdoul Quddus nga xam ne ku ne xam na ko ci taxawaayam tabaarakalaaw ci diina ji nee na mi ngi rendre hommage sëriñ Fadilu Mbàkke moom sëriñ Mouhamadul Moustapha Fàllilu di xaritam di soppeem génn àdduna ren yal na ko yàlla dolli tawféex fa mu ne ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam sëriñ Bachiru Kan nee na mi ngi ci rendaale hommage ki nga xam ne mooy sëriñ Xalil Mbàkke moom sëriñ Fadilu Mbàkke radiyallahu anhu di ci teg ki nga xam ne mooy baayam xaritam soppeem nekkoon fii ci diwaanu Thiès ñëpp xam ko muy Cerno Abu Dia tabarakallahu nga xamante ni nii yàgg naa sonnal lislaam yàgg naa liggéey lislaam tabaarakallaahu Ceerno Abuja nekkoon nitu yàlla boo xamante ne nii lim fi xeexal lislaam fii kenn tabaarakallaahu umpalew ko tabaarakallaahu xeex na bataay ngir diina ji xeex na bataay tabaarakallaahu ngir néegu yàlla yi mën a gën a am doole gën a mën a taxaw bu baax a baax a baax kon yal yàlla doole ko leer fa mu nekk nee na mi ngi ciy rendaale hommage ki nga xam ne mooy xaritam di soppeem tabaarakallaahu di El Hadji ah, Baye Moussa Haydara tabaarakallaahu nekkoon xaritam di sotu yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam nee na mi ngi ko ci rendaale hommage tabarakallahu nee na mi ngi rendu hommage sëriñ Habib Ndiaye nekkoon xalifa vole ca bi ca Bouchra ca Kaolack nee na mi ngi ko ci rendu hommage bu baax a baax a baax di woowaale waa Bouchra yëpp tabarakallahu ci bés bi ku mel ni ki tabarakallahu sëriñ Abdoul Aziz mi ko daan teewee at mu ne nee na mi ngi la ci woowaale di la rendaale hommage baax a baax di la jaale sa mag ju tedd ji sëñ Bachiru nee na mi ngi ci rendu hommage ki nga xam ne mooy sëriñ Babacar Gueye bu Bargny nekkoon xaritam nekkoon soppeem tabaarakallaahu mi ngi ko ci rendu hommage baax ak ki nga xam ne mooy El Hadji euh, wan di far Dramé nekkoon fële ca Casamance waaye féete woon fële ca diwaanu Ndakaaru nee mi ngi ko ci rendu hommage ak ay soppe yu baax yoo xam te tabaarakallaahu ay yaayam lanu ku ci mel ni que soxna maam jaara sëy bu mox mox tabarakallahu nee na mi ko ci rendre hommage ak soxna Aïcha ngiraan bu ngiraan neen ak soxna Faama Diop Bambilor nekkoon doom ci moom tabarakallahu kon nag kàddu gi xam jébbal ko ki nga xam ne mooy sëñ Bachir Kane alquran nga xam ne moom mooy borom bés bi mu woo tabaarakallaahu ñi nga xam ne ñoom la war a woo tabaarakallaahu sant ñaan tabaarakallaahu ñu jébbal kàddu gi sunu euh, xalifa bu tedd bi Baye Amdi Mouhamadou Moustapha mu ñaanal mbooloo mi ñu tasaaroo tabaarakallaahu ba keroog la wét ak jàmm incha allahu taala kon nag yaa yàlla defal ñëpp jàmm yaa na yàlla sàmm ñëpp ñi nga santit waa Thiès Média ku ci mel ni gis sëñ Abdou Karim mii nga xamante ni at bu moo koy ànd ak ñun tabaarakallaahu maa ngi woo soppe sëñ Medoune yëpp bàyyiwuma kenn képp ku sama soppe yéen ci nekk ci internet bi yéen ñi nekk ci fu ne da di ma dégg da ngeen xam mu baax mba xam leen ñu yàgg a jëflante waa woo naa leen soppe alquran soppe Cheikh Medoune yëpp woo naa leen ci tabaarakallaahu sama kaddu maa ngi koy fas yéene wàcce nag jébbal kaddu gi sëñ Bachiru Kan alquran wa ma dalika ala allahi bi aziz salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo di leen sant di di jiital cant gi ci sunu kilifa gi toog muy sëriñ Amdi Moustapha Kane mi nga xam ni yàlla dogal na tey moo nekk ci bopp Kaneen nja gàmmu ñoom ñëpp muy seen kilifa du nuyu it ñi nga xam ni ñoom la bokkal ci jataay bii sëriñ Mor Gueye ak sëriñ Daouda Seck waaye du nuyu sama xarit yi nga xam ne nii alxaaji Ahmadou Mbay waaye alxaaji Marabu Sekk waaye di nuyu ki nga xam ni it mooy Serigne Fallou Fall moom Serigne Cheikhouna Fall mi nga xam ni nii wooteem bi matt na sëkk ca taaru waaye di nuyu jigéen ñi nga xam ni nag ñoom ñoo taaral jataay bi di ci jiital soxna day màggat mi nga xam ne nii man moom ñoo bokk lépp waaye di nuyu samay soxna tàmbalee ci soxna Xadi ak soxna maam jaara ba ci maam say faal mi nga xam ni ku nga xam ne ab taxawaayam bu baax a baax di nuyu samay goro yi nga xam ñoo nekk ak man ci kër gi waaye may nuyu samay jarbaat yi nga xam ne nii ñooy soxnay Serigne Cheikh Kane muy soxna May Fall ak soxna Absa Ndiaye waaye may nuyu nag sama dëkkandoo yi nga xam ni fu ma geesoo rek gis leen muy waa Cekkeen kàddu yi fi awa jëng rotal mat na sëkk muy waa Mbuubeen ndax fu ma geesoo rek gis leen bu tàngee ak bu naajee yëpp maa ngi leen di gis di nuyu it waa Ngéyeen bàyyiwuma kenn soxna Mariam Thiam mi nga xam moo fi nekkal Touba ca kanam tey ku baax a baax moom it ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu sa bu baax ba dina xamal nag bis bi ñëwaat na mooy bisu alquranul karim bis bu ma ñeme nag bis bu ma nangu nag ndax ku ñeme dañ la déy bis boobu xëyuma rek ni damay woote bis waaye day loo xam ne nii foo mu jógee ba agsi ci samay loxo moo tax ma ñeme ko foofee damay xam ni lu mu jóge ba agsi samay loxo ma téye ko lu fa jógoo lu ne lu wóor la ci lu lu ma wóolu la damay wax ni bis boobu bu ñëwee ñeme naa ci aw ma ci dara lu ma ciy tiit aw ma ci lu may ragal ku ci jox loo ma ci mën a indilit ñeme naa bis bi ndax dama xam ni li ci bis bi moo ëpp fuuf li ngay indi ci bis bi te maa ngi seetlu bu baax a baax ni ba ma ko tàmbaleeg tey ñi ci ànd ak man di ci jëf ñëpp kenn ku ci nekk yaay dox bay daj sa bopp ci li nga xam ni mooy sa yitte ni muy fajoo ñi amul borom kër maa ngi leen xamal ni bis bii bis la boo xam ne nii ku fi ñëw sàkk su fi borom kër yàlla dina la ko may ñi amul wërsëg ku ñëw ci bis bi sàkk fi wërsëg yàlla dina la ko may ñi tëju ku ñëw ci bis bi sàkku fik ubbeeku yàlla dina la ko defal ndax bis la boo xam nii day li ci nekk lépp man de wax dëgg yàlla mënuma koo mënuma koo lim ci ay xéewal ndax sunu borom te dafay wax ne wa in taaddu ni'matallahi la tuhsuha xéewal yàlla yi su ngeen ko bëggee wàññi du ngeen ko mën a wàññi waaye xéewal yi ma yàlla defal ci bis boobu day man xaw ma nu mu toll li ciy feeñ nag ñu koy gis li ñu gisul moo ëpp fuuf ñuy ñaan yàlla yóbbuñu fi ak jàmm ma ci woo julit yëpp di ci woo am di jàmm yëpp di ci woo xarit yëpp maa ngi ci woo alxaaja Abdoulahi Dia bu Sénico waaye maa ngi ci woo doomi ndeem alxaaji Moustapha njaay mi nga xam ni nii ku ne xam ne ab taxawaayam ci daara ak ci alxuraan waaye maa ci woo ba tey xaadimul quraan maam Omar Dia waaye maa ngi ciy woo julit yàlla yëpp ndax alquraan moom kat moo waxal boppam li mu doon inna hada alquraan yahdi lillati hiya aqwam li gën a baax la alquraan di defar kon bisub alquraan baa ngoog woote nañ ko di ci woo mbooleem taalibe yi xarit yi am di jàmm yi woote dafa mun la ñàkk ci man rek waaye ñi njëkk wax lépp lu ñu waroon a wax wax nañ ko ba noppi xanaa man kay dañuy sant rek ci ñaan bu bis baa lépp rek sunu borom mi nga xam moo mën a yéwénal yàlla na yéwénal lépp ñuy soññ borom daara yi ci kaamil yi lim yi bëgg naa mu bari lool waa rabitatu al madarisul ci taxawaayu sëñ maam Omar dinañ def téeméeri kaamil ak fukk ak ñeent ca loolu xam ngeen ni mooy li misaari alxuraan waaye teewul it mboolem daara yi nga xam ne ñoo nekk fii ci dëkk bi ci ceesit kenn ku ci nekk am nga lim booy def daara sëñ Njóga Siise ak daara ji nga xam ni moo nekk fii ci kër gi ak mboolem daara yi nga xam ñoo nekk ci dëkk bi daari sëñ Xaadim Lo Gaydel daari sëñ Asan Kan Nasru daari sëñ Fallu Njaay alxuraan ñoom ñëpp kenn ku ci nekk bis bi sa la su yaa ngi koy taxaw bu baax a baax kon daal ñu ngi leen a xamal ni noo ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa ñu àgg ci ak bismillahi rahmaani rahim tàmbali ba di alhamdulillahi rabbil alamin di jeexital ba yàlla na nu ko yàlla defal kontaan nañ ci yéen yàlla na yàlla fay leen yéen ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. tabarakallahu Cheikh Mouhamadul Bachir Kane kan nee na bés bi mi ngi ciy woowaale ki nga xamante ne ni xaritam la soppeem la di lépp ci moom tabarakallahu di Cheikh Aïssa Ba. nga xam ne mooy moqaddamu Seydi Ahmad Tijani di xalifaam fale ca zawiye bu Bambilor bi nee na mi ngi ko ci woowaale tabarakallahu ak mboolem taalibeem mboolem soppeem mboolem xaritam bis bi nag kañ la le samedi 8 avril tabarakallahu à partir de 9 heures tabarakallahu ku xëy rek ñëwal tabarakallahu jubal si fii ci Kawsara Fall foolaate kër sëriñ Bachirou Kane alquran kenn umpalew ko fi tabarakallahu